waaye nuy séntu wuñu ci séntu wuñu ci woon lii nag waaw ah. séntu ko ci woon de ay moom dafa def kook dafa baax bu ñuy wax baax sëñ Tuubaa moo baax bu ñuy wax gore sëñ Tuubaa moo gore bu ñuy wax mat sëñ Tuubaa moo mat manduteef gi ci moom ak séddaleem gi ci moom ku dul moom mënoo ko du wàll bañete du benn nopp li ma gën a neex ci sëñ Tuba mooy sëñ Tuba moom du du wàlli bañe maanaam mënoo koo wax ci nit dara ba tax mu nongu la mu ko defaloon loolu na ngor rekk ko man ak mag sëriñ boobu nag dafa ñëw ngir dimbali ñu rek ak xettali ñu liggéey liggéey bu rëy digganteem ak sangam ba sallallahu alayhi wa sallama fàtte léppam fàttey dëkk fàttey kër fàtte njaboot ngir sallallahu alayhi wa sallama waaye yàlla fay na ko nit ñëpp a ngi dëlëf dëlëf yi fan lañ jëm ci sëñ Tuuba penku day xët sawu xët gànnaar xët saalum xët di walwali ñii di tànku ñii di war ñii di xuus ci géej gi ñii di war naaw ca kan lañ jëm ahmadu daam fépp a dagg jëmi ci sëñ Tuubaa mu di koo xam ne li ko taxoon a jóg mooy fexe doomu aadama mucc fexe doomu adama xettaliku fexe doomu adama raw chaxalat ni ibadatu rabbil alamin wa tilawat kitab rabbil alamin wa itibaa sunnati xayr alalamin wal ijtihad fi masalihi alalamin an iltifati an mafasidi alalamin sama yitte mooy topp borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu sama yitte mooy topp su sunnatu rasulullahi sama yitte mooy jàng alquranul karim sama yitte mooy li tax nit ñi yéwén wala si may xool bon bon ni kenn man ahmadu sama yitte jëpp mooy topp sama boroom rek topp googu muy topp boromam nag ci ay guddeem ak i bëccëgam ak jaayug dundam lépp jaay ko yonente bi sallallahu alayhi waa réew mi nag war a xam loolu ci seen bopp mu leer leen ñu bàyyi topp réseaux sociaux yi ak làqatu ci ruq yi di sànni xeer sëñ Tuba ko wokaal ak wut looy wax te tegoo ko ci dara lu mooy ñàkk jom ñàkk jom nag day noo xas ci gor ndax ñàkk jom mooy tooñ ko la man te sëñ Tuba day képp ku ko sànni baat ba noppi ne dund du diine ngay dund yaa ngi ci wax ju wérut ba mu ne bëreet liggéey rasulaay yitteem xamidtuhu min baadi shukrihi ala ma qaada li min althawaabi walula id lam azal munsu علقت طالبا معرفة به تعالى جالبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يدي عمري اتباعا ومن أبى الخسران لن يعابى maa ngi sant yàlla di ko gërëm ci wommat gi ma wommatale ab yiiw aku kawe ba ma jógee rek damaa suubu yoonu gaa yi baax di wër borom xam-xam yi ak wàll yu sama yéene ak samay wax ak sama jëf ngir bañ sama dund sànku mu ne waaye damaa jàppoon sax ne bu jëkk ba ma jógee di def ku yor dara ma wër la damaa mujj xam ne man li ma doon def yëfi dof la xat kuntu aqra wa aktabu sinin muraa'iyan bi amali kidi junun xatan saraftu lil ilahi wa rasul bi jasbihi lasi xabaani bi suul te awraad yi bi talqiini la ko jote di ko defee noona ba yàgg seeni borom wax ko ko ba yàgg yonent bi joxal ko ko boppam mu bàyyi lépp nag mu laaziman li aayihi mu naajiya li kay akuna faizan wa naajiya loolu moo tax mu jël alxuraan def ko muy werdam min qabla aama jayshin wa qaada kulli fiihi muxrijan fan qaada ca jaysh di 1313 laa tàggoog lépp bàyyi lépp na nikk alxuraan def rasulullahi muy sama wasila waaye nag xoolal ba ma ko defee ca jaysh lan la may jural ak faa ko mu ne dalla ni al karimu aama daysashin wa kaana linnaafiu aama haysashin la ma sama boroom wammatalal loo xam ne daf may génne ci lépp lu dul noonu waaye it sama borom moomee jariñ ma ca atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom hadani al alim aama waysasin wa kaana lil baasitu aama zaysasin jubal na ma moom yàlla ci atum junne ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn waaye nekkal ma moom yàlla mi aji tàllal lu ko soob ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar waaye nag lim taqamal mu miitu aama aysashin wa kaane lil fataahu aama taysasin yàlla fayul na ma ci atum haysa si atum junni ñett téeméer fukk ak juróom-ñett waaye nag aji yàlla mi alfataax nekkal ma ci atum junni ak ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñeent wa xaadani aljamilu aama kasasin wa kammala aljamilu aama aksasin mu mot mu wommatal ma ci atum junne ñetti téeméer ak ñaar fukk waaye mottalil ma nag ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn day jege aama shahid naa bi karam mu ne waaye nag wa kaffa fii baksasin aljalilu wa inna nii xabibuhu alxalilu mu fegal ma nag lépp ci bac ses di mille trois cent vingt deux waaye nag moo ma nekkal nag ma nekk xaritam nekk ab soppeem looloo tax ba mu nekkee di liggéeyal boromam mu ne faa nekkoon lam yanxu nii makurun la dal jazair woo bi laa ha jazair yi looloo nu dal sëñ Tuubaa ne na faa nekkoon boo demee pexee ke xalaat kuy jéem ci man mënul ci man tus moo tax yàlla defal ma ci faju ku ma si yaare sa aaju nun sooyunu moom de su ko wër di niil ak àpp pare nan des da ko nangu de su ko nangu moom ñëw nga ngeen moom rek accepté nañ la loolu tax mbiram wuute gaañ li may faral di wax gaañ ñii pepp lañ ñii góorgóorlu ba nekk cere waaye loo ca am rek am na lu des ndax am na loo cay doole muuraake nag boole na cere ak suukar ak ëreen cëgri it boole na suukar ak cere akum soow loo ca naan ragg te yëg bànneex ba loo ci am leneen muy beru loo gaa yi dajale di ko wut benn lañ ci am sëñ bi moom yëpp lislaam jii nag tax ku ney wetu jàpp ne diine lislaam ab sikkin la ak toog ci ay roq di débat ak lu ne nga ne xaraam ak ñàkk a koy waral sëñ Touba ku mën a doon boo ko dëkkee ci diine amoo jom ku mën a doon boo ko sóoroo ci diine amoo jom kum neex nag mën ngaa toog ci sab minbar kum neexit mën ngaa toog ci sab roq di waxtaan ak say gaay di wakaal ak sànni ak wax lu ñaaw waaye en 1895 dana fi fan leer nañ ku ma sa tukki laxas ngir diine l'islam rek amut moom rekk a ko def ci nit ku ñuul génn fii ci réew mi. man zanna anni li ghayri la murtaxilun aw li siwal Mustafa al-Muxtaari fi safar ku ma jorte daraa ma tax a jóg lu dul yàlla ak rasulullah bàyyi sa kër ngir yàlla bàyyi say dëkk ngir yàlla bàyyi sa njaboot ngir yàlla dajeeg say noon ñu boole kattan gu rëy di la ko teg te du tax nga faat benn waxtu baa nga tiim bari na tey ku jàpp ne diine jëm am ba am indépendance ba mu ne murid dañuy daje nga ne dañuy noos baa nga ne li ñuy def bidaa la da nga na nga yëg ne yow jàkka ja nga taxaw di ca julli baa nga yëg sa bopp bu neexoon sëñ Tuubaa ba mu nekkee ca géej ga yow doo am liberté boo mën a jullee dafa am bis mu mu signé contrat bu leer ak nasaraan ca Gabon nee na dafa xëy bis tubaab bi ñëw na ko gis nga garab yee ngay seen suul nañ fa juróom-ñaari wëll yi sama maama leen rey suul leen fa sëñ Modou Xëri bu sa la ko li sëñ Modou Xëri Bousso nee na bi ko sëñ bi nettali da ko tegal warga di ko ko wargaal ba noppi sol garam bu baxam moom ku tedd ki jiitalu dara sol mbaxanam curi caar na ko ma wax la as def ci sama diggante ak nasaraan kayit yaa ngeen mën daana ko bis damaa nekk ci géej gi tubaab bi ñëw na ma sama maam am na juróom-ñaari wëlli yoo xam ne garab yi ngay seen fa leen suul sama maam a leen rey daan na ko waaye nag na nga yëg ne yow mii yaay juróom yow lañ cay sëñ bi ne ko doo sa maam te sa maam du yow du ma ñee duñu maam yemu ca tubaab bi ne ko 6 heures de matin nag ma fekk ca quartier sëñ tubaab daa bokk ci lim jaayante woon lu ko nasaraan bi wax lu dul naqari yàlla mu def ko sëriñ bi dem nee na ba ba ba mu ñëwee tubaab bi di ko jël si ñu ànd dañoo wax soldaar yi ne leen na ngeen takk toog ngir maaj ta war seeni fas ak seeni fatal bu sëñ bi ñëwee na ngeen dawalandoo rek fil ko fetal ko joggi ko jàll waaye nee na bi sëñ bi ñaadam ñaadim ànd ak ñoom daa séen ku yor aw fas jekki-jekki ne eh yéen ñooñu ne kii kaay foo jógee mu ne Sénégal sëñ bi nee ma ñëw mu ne man la jibrilu alayhi salatu salaam xoolal asamaan si nee ma tiin ahlu badrin taxaw méttal ak jees yi na ma ñii dañ laa bëgg a féer looloo leen tax a jóg suñ borom jox ñu ndigal na dem leen ngeen taxawu ji Ahmadou Bamba Ahmadou bu la neexee nguuru France jeex ba faw nasaraan jeex ci kaw suuf tubaab bi gisal boppam métal gi daal ne sëñ Tuubaa ñii yaa leen fi indi sëñ bi ne ko ah maa leen fi tax a ñëw de ñu ne ko signal nu fii ne doo fayantoog nu mukk nu nguuru France nu bàyyi la nga dellu ci sama réew moom sa bopp dundu sa diine ak nu la neexe kenn du la gàllankoor sëñ bi signé leen qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tubaab mi ne ko ngir nga jëfe ko nag da ñuy wax nan ñooy sa ñoñ ngir nga mën a jëfe sa diine nu la neex mu ne la ilaha wa anna muhammadan rasulullah loolu nag bu amee ba fi tubaab yi di laaleeg Cheikh Moustapha al Karim génne na mbind mi wan leen ko moo tax léegi la nga dégg ko yor aw làmmiñam naan réew mi ñëpp a bu buñ teree ñii dañoo war a tere ñii déedéet déedéet déedéet ki sukku raxasu di lekk bokku la ko dem ca dàgga ja soq wal togg ba mu sotti mu ne ñëw leen koo koy daam wanaasu gi nag ak taxamtiku yomb na mais ku bojj woon mooma ku ni defu doo ko moom loolu na leer ci seen nopp yi moo tax boo gisee mbir daa am lu ko sabab sëñ Tuubaa dafa am liberté ci jëfe diine te ñoom négocier googu ñu doon négocier leer na ca ila nasrina qad saara'u maqyulihim wa xaafa al-ida minhu wa maalu ila salam damma li al xidmatu lil jundil kiram wa xaadalillahu biha xayra maram yàlla boole na ma ci jundul kiram muy ahlu badrin liggéey bii moo moo ma ci yóbbu baa man caa bokk man Cheikhul Khadim radiya anillahu wa rasulu wa ahlu badrin wa atani suulu yàlla gërëm na ma rasulullahi gërëm na ma li ma bëggoon lépp am naa ko man Ahmadou Bamba diine bu la ko jaralee da koy xam ku nu évité ci rajo bala ngaa sab xol jeex nga wut loo sànni sëñ Tuuba te bu mu jógee naa innamal muminuuna ixwa diine ji benn la nañ bennoo te fi association nangam ak ay société nangam kuréel nangam te financement képp ku ci tàmbali jumaa ju yegg ci ñoom amul baax financement lay doon condition yi ñu koy defee da nga koy péntal ku bëgg a bëgg a nan la nangam te bari na ñu ni sukkandiku ñoo xam ne ñooña bu ñu gisee sëñ Tuubaa dañuy raam samaani yax jajëm juróom-ñaar fukki at la dund ak juróom ma tiim ma faat waxtu ci sëñ Tuubaa nga gis bu la diine ñoree ba nga bëgg diine naan jaamu yàllaa fi nekk sëñ Tuubaa képp nga gis mboolem investissement yi ëpp ci yoonam doone ay ay seto doone ay immeuble doone nangam daaray alxuraan jullikaay képp ngay gis ci liggéeyu sëñ Tuubaa ay milliards lañ ci investir ab dëkkam képp nga gis ñu dem wuti ay ab raay ngir defar jubam ab dëkkam képp nga gis téeméeri juma ak ñaar fukki julli ajuma te ñii di balballu li daloon barki démb ñi bindu téere bii ci mbóorum Sénégal nga gis raw du rayaax ñu taxaw corrigé leen ñu gis ñu sant Mbàkke Sëñ Tuubaa di seen maam ñu dàq leen a làkk français dàq leen a làkk anglais gën leen a dégg arab jubbanti leen looloo dal sëq si kim yii ñii leen raw duñ seen morom waaye nag mënta ñàkk ndax boo bëggee dund te waxoon naa ne amoo donga amoo mbooloo mu lay topp yàlla boole wala ki soppee da ngay créer faaw sa xol jeex te ku la dàq jotul lu mu for sànni la ku ngemee nag da nga naan fan tuub ngeen ci delloonu ginnaaw ci sëñ baa mënu leen ko ngir ne leer na leen ci mbir mu fi mas a jaar sëñ bi da koy gëm wóolu ko mu doy la wóoluwoo ko gëmoo ko nga bandu ci ay waay xanaa min xusni islaamil mar tarkuhu ma la yaani li sa yoon nekkul génn ci loo ko mën a jaay ci diine loo ko mën a jaay ci ba ci topp mooy jëmmi sëñ tubaab ku ko ja maanaam gëm-gëm la ñiy analyser nga xam ne dangay ngay jàng tubaab ñooy witale ci plateau yi ñu naan non diw la ak doctorat sangam laa am na nangam ak mi ngi jàngale université sangam ak nga ñëw na kat ji ñu ne màggal gi euh, màggal gi wala ñu ne nangam sëñ tubaab ngay analyser mais alors d'abord ici parce que croire que eh, yow yow loo doon kii bàmba yëg-yëg la gëm-gëm la sëñ Tuubaa waaw du lu ñuy du ñu lu ñuy tatune tax na ngay ci weer di ñod naan waaw parce que réew mi yow xanaa xamu ne jaamoom ñi nga doon seen patron la sëñ Tuubaa bëree loolu te sëñ Tuubaa li gën a neex ci combat mooy du daan du daan kat ëppi du daan njëlloo te du def romance jagit fàtt rek ku ma sa daan yëngu woo daan kon nañ jàpp ci sëñ Tuubaa mii rek bu dee posé nanu roy te kat defe naa nag ngor ak jom war nañ ko am sëñ Tuubaa dana Cheikh Issa Diène ay sa mu ne ko mbakki mu ne ko seeree na as gor la ab jullit la Cheikh Issa Cheikh na teg mu ne ko xanaa xamoo as gor du war ab jullit du fen li lay dëggalal ngoram nee na li ma dal lépp yéen damaa romb borom gëtt xet ga xeeñ ma te gisuma gëtt aw ma gëtt ma ñëw fi sama ñun ku ne na ma may ma te sama ngor mayu ma leen aw ma ko wuti ko rek seen ci wàllum daj noonu te billahi jëruma li sëñ Tuba def ngir ñoom barke borom Tuba jëruma ba ko moo xettali rek sëñ Tuba benn ennemi la am benn noonu la am muy iblis ñun koy dendaleeke karkari tuxu leen a jóg bi muy dem am na dëkk defar naw nit taalif nay téere kooku tax ko woon a jóg xut bu samaan lañ ko nomeel te demagut daa am lu mu bëggoon iblis dana yàlla sa jaam ñi fa bi anzatika laa bu yennum ajmain sëñ ne ko du fi amee ku ma déggal topp ma déglu ma doo ko gis ak li munu tukki na ñëw leen bokk yàlla nattu yi jog yi xotti bi téere ak coole bu ne mu daj ko ne sant ne leen ma yàlla lu ma yàlla fay nu bokk buñ demoon ba yowmal qiyaamatul akbar yàlla teew rasulullahi teew ñëpp teew ñu ne sëñ Tuba amoo fa dara lu may sawara nu gaaw jiitu noonu ci ngoro daw jëkkante di sawar dem ñu jiitu ci daw duggi sawara te am na ci péex nga xam ne mbakki dam mbakki bana lu ko war a def ba dem jotee toog leen loox mu dem kenn gëdduwul gaalam kenn jébbalu koy dàllam kenn ruutaliwu ko kenn gëjjaliwu ko bu bëggee jàkk mooy gaj yi bant mooy sambal boppam ba liggéey bi mag mu ñëw te teggil nu suñuy fitna ak suñuy coono ak mbugalum adduna ak alaxira képp a taxoon suñ tubaab bi kon loolu war naa tax nu gore sangam ba de moom jaraloon na ko lu ne rasulullah sangam ba rasulullahi jaraloon na ko lu ne saxaabaam ya jaraloon na ko lu ne waa këram yi na ko lu ne ay waay teenoo gore te dooni gor bañ a déglu rek bañ leen a faale sëñ Tuubaa daal nu def noonu baax na <laughs> nu munu def noonu baax na ndax wàccoon naa ku defal na la lu la jomb defal na lu kon nag yéen ñi nga xam ne yàlla moo nu boole ngeen jàppalu seen bopp te seen Tuubaa ma man sant naa leen sëñ Mor ñii sant naa leen fan yee dañuy nekk ci oto bi bu ñu waxee gaañ ma ne leen màggalu gën gii mooy dàq ma sa loolu la dégg nga ko ci ginnaaw màkk amul màggal gi wut la màkk am la aji amul waaye aj na lu ne nit wax ko fu ne nit jaarale fay kàddoom gàllankoor bu ne ñu jéem ko ci waaye rikk waay ka fa deeru mi dane dane dane leen tee nelaw de bu mu leen tee nelaw bu nu kenn kiriyal nag bu nu kenn kiriyal suba bu nu kenn bindal bu nu kenn wutal kaa bu nu kenn programme dara <laughs> Bamba woote nu wuyu te kenn woo moom xam nga ne ka waxoon sëñ Modou Ndiaye maa bii keroog ba muy tàggoog moom ci ca ca ca Ndar noobali ndar yëpp ñëw daje kooku ko signéloo mu jékki-jékki ne sëñ sëñ Modou Ndiaye maa bii nee na ma toog sëñ bi mu ne allah julli ba sëlmal ma bëgg a wax rek mu ne allah ba mu sëlmal jékki-jékki na ma na ma ahmadu ne ah, ma ne ko mbàkke dañoo bëggoon nga de dañoo daje woon ak nasaraan bi bëggoon a waxtaan waxtaan ko ñu naan sëñ bi ne ko ana ku nu tooñ nu muy demee ko ko tooñ di ko jégalu waaye sëñ Modou Ndiaye maa bii sëñ bi danañ yëkkat der bi génn aslëf ci ci asir na ko am mu ne ñokket mu ne ko ba may dem ba desi doo wopp def faatu maay sa seere kooku ba muy dem la garanté bagage kon bu nu wooyee nañu wuy si mooy lii nu def noonu sëñ bi nag mooy noonu lislaam fu ne la waaye di wute loo yàq waaye bu nu kenn kiriyeel dara bu nu kenn sosal dara dara xew jàmm rek cant gi nag yonent bi sallallahu alayhi yàlla da ko fekk na ko waaw xanaa fekkuma la nga di jirim xanaa fekkuma la ngay ko ñàkk xanaa fekkuma la xanaa fekkuma la xanaa fekkuma la fu ma la fekk laa la fekk laa ko wottee fu ma la fekk laa fekk laa la wottee ba ca jeexantal ba mu ne ko wa amma bi ni'mati fa haddis kon nag ginnaaw rasulullahi lañ waxoon loolu wa ma bi ni'mati fa haddis kenn ku ne sañ naa waxtaane nag loolu ci sama diggante soppe yi màggal gii defe naa lu gàtt-gàtt ñetti nag moom yeewe woon na fii ci kër gi nu mu néew néew amoon naa lu jege géttu ba am na lu neewoon fee amoon yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man laa waajoo ne lu ko raw gis naa ko loolu nag bu ci soppee yi boole koo ñëw def nii yéen ñi am na ñooñ bu daan màggal si amuñu am na ñooñ seeni wata lañ indi am na ñooñ bu ñu mosaan màggal si dañuy war fu ñu dal tey ñenn ñi am nañ seeni béréb baa ñoom béréb yi wëllëre baa ay soppe yooyu buñ fa demee mu mel ni seen kër xanaa loolu ak yokku la waaw boo ca boolee nag xëy ay soppe daje doon ñu yiiw solo ba jekk ut seenu enveloppe def ca lu tolloog juróom-ñetti fukki junne ak nangam te nga màggal rek ba noppi ñu ne leen lii soppe yee la ko te te ci biir soppee yi am na ñu yeewi nag am ñu indi ndox am ñu indi boisson am ñu indi yeneen ak am na ñooñu seeni beñe gis ngeen ko ñu ngi doon distribué boobu ba ak yeneen ak yeneen waa léegi loolu noonu leen ko bëgg a jàppee Hmm? te lii fii amee lii mu amee fii mu amee fii fii la amee ni ci sàmm gi fii màggal daana ñëw doo mën am bopp xar sax man ma kenn di la seet si nag ñu bari duñ dal fa yow ndax xam ne amuloo lañ jox boo ko yéenee it te booba la fi dal gënoon a jaadu ndax booba samay bokk ñu ci am kër ci dëkk bi bëriwul waaye xam na ne sama doole néew la ak say bokk ba duñ fa moom loolu yëpp dara waaye Serigne day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko boole koo ki gaay loolu la sëñ bi di def loolu sëñ Moussa man lay wax hmm. man mii lay wax sëñ Moussa man lay wax ndax loolu nga di ko yéene bu dee ay mbubb boobu màggal gi continué waatoon weere mën naa bët bu set ma solal ko mbubb te lu ci nekk nit a koy ñëw ñëw yónnee la kon la mbubb mii dimbale ma sol tàmbalee ko ci ñoo xam ne sëñ Tuubaa jur seen baay ñuy seeti sëñ Tuubaa Cheikh Abdou Samatum sëñ Chouaïb boo kilifa yi kenn ku nekk ñu ne la mbubb mii solal mbubb mi solal ba am na ci yooyu da nga naan xanaa dama koy sol génn dem ci béréb sàng ma ñu ko war waaye amul sax jataay boo ko sole jataay bu nekk mbub mañ lay jox na la solal te mosoo mosoo woon a xalaat bi ma bëggee ndox ñii xam nañ ko gis ngeen dëkk bi manqué ndox man ña jiite kaa bu Thiès policier oto boobu ñuy yor di ko roosee bu nit ñi manifester moom lañu ñu def bët bi set ñu ne ko sa muuf yi xel leen ma te xawuma leen it ñu ne sama soppe leen loolu du ay caaxaan. préfet préfet sax ci soppe yi la bokk. na ngi doon ah loolu du ay caaxaan mbokk yi kon loolu bu amee gor yii ma yàlla boole ak ñoom man dama man dama dul fakk du ma fàtte démb bokkuma ci ñi nga xam ne tey day neex ñuy nangaara la xamoon la di la fàtte déedéet te day lu ma ñàkk-ñàkk solo mu am naa dara ci Sëñ moom loolu moo xam naa ko te defaluma ko man ñi gën a gàtt alliwu ci àdduna ci laa bokk ñi gën a gàtt alliwu ci àdduna ci laa bokk alhamdulilah loolu ma dàqal lépp alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah kon loolu bu bu nu ko yàlla dimbalee ay gor yi ñi sëñ Modou Jaxate ngi ne sëñ Ousmane ñii nekk ay commercant ñii doon borom yi xam-xam nga xam ne fi ne tey man dara man naa ko bañ a ci adduna bi te boo leen woon ko ci nangam gànna balaa guddi rek ñu ne nit am na ko nekkee ci roq bi yor loolu woo na ko wax nañ nangam wala def nañ nangam nangam nga xam ne sa lépp dafa am ñu la ko taxawoo. sëñ Babacar mii yaakaar naa maa ngi koy toppatoo loo xam ne noonu ka ko jox mosuma ko nuyu xaw ma mu dem dagg ay teelee ci Tiwaawan Pël joxe ko nii ma yor kay ji di ko toppatoo. te am na yu ko jiitoon yoo xam ne jaaraguma fa ba léegi dama koy dégg kayit dañ koy indi ba fii rek ma téye ko loolu dama ko wax bis waa kër gi naan ma oto yi nga yor ba liwut foo koy gaare yenn yi xëñu ci kër gi doo ko jaay ma man benn oto laa bu ñuul bii ma jëlee sa yëpp sëñ Tuubaa ma ko joxe <laughs> ko jaay yëfi sëñ Tuubaa la te man tolloon naa jamono boo xam ne ku ne ma dama da nga am sàmbaraay du ma ko gëm damay dugg sama néeg xool photo bi ba yàgg ma yëg na demoon na Makka ma di ko xoolaat di ja di xalaat ndax man a wala soppi ko du ci man mii maa demoon Makka man man bu ma nit nee léegi-léegi Alaaji Gana damay tiit ndax programme mu Makka laa jàpputoon dana ci bokk te ba may dem Makka aw moonu may kaay dem te ngay waxtaane sëñ Tuubaa ak sa ñàkk xam-xam ak sa ñàkk solo xanaa kon ku ne ci ñun sëñ Tuubaa war na la lu tax nga xam ne sëñ Tuubaa dëgg kon nag wasaatul miidaani laa yux fiha ibaa u namlatin sulukan fiha kala wala yulanisul mutahara qawlu sawi danasi ma tatahara kon bul gestu bul gestu nan dox ta wëy nan dox ta wëy nan dox ta wëy nan dox ta wëy dama mas a jaar ci benn poste kilifa gi woote na yëpp leen gànna ndox damaa mas a jaar ci benn poste maag daaru fajar gi waa ji arrêté ma na ma sa weer yi da ko tent ma ne mu ma ko dindi ma ne ko ah mu ma déet fii lay dañee léegi fii léegi nga koy dindee léegi ñu xoos tent yi ma dem ba jamono ñëw ma jaaraat fa ka fa nekk simi mbaxanaam toojal ma barki dem ma ànd kuréelu xasida ne fii ba deux heures de te yilif leen ñoom ñëpp fàtte la mu waroon a takk defe naa mën naa am sax ma nga ca mbooloo mi mën mu ngi ci mbooloo mi te yilif ñooña nag ba noppi bóof ci dàq jooy dàq daam ba noppi toog te yow amewoo ko lu may daa ma baax moo tax waxtaan wi dama cee këfut maanaam tiire nit kër tuuti sax ndax moo ma ci boole benn bañ day fonk te weex yow sëñ Mahamadan góor sëñ sëñ xaadim loo mooy sa maam sëñ baara mooy sa maam yow sa maam def na dara man sama maam daf ceddaloo man ni ma mel ci man la tàmbalee man ci man li ma ko may mooy loolu dinaa ko sàggane kenn koy fuuf tandiku ni janaab ak wut looy lijjanti ma ma faale la ah ko defal kenn kon nag yii yéen ñi ma yàlla booleel barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké nii ma ko waxee ci kanam sëñ Muntaxa noonu laa ko ñaane yàlla nu waxee ko sëñ Tuubaa ñu fa dajee yéen a baax yéen a gore yéen a ñàkk kiñaan yéen a sell yéen a set yéen yéen a bëgg sëñ Tuubaa yéen waaw yéen seenu bëgg sëñ Tuubaa moo waral ngeen fekk koy las-las yi ngeen ne ko jàpp nañ la ngir sëñ Tuubaa di ngeen ko xam léegi bu soobee yàlla mooy tagg bamba moom muy saadix la moo tax ma wax sëriñ bi rek moo fi nekk tamit di wax naa seexu bamba jafe na mhm. kii rek kamat di taamu ci waxtaan yi mhm. te moo matit di diglu ngir du sëriñ bi mhm. te bi turam nga mooy alxaaji Gana Misra taalibe sëriñ bamba bu mag la mbër la alxaaji Gana laa di wax ngir dem na ziyaare xayru xalqilaahi aj na Cheikh Abdoulaye Samad mu siñ Sohaybu moo bég ci moom yóbbu ko kii du xel xamal ne nag murit ne jëf jiidu hasard ndax ñëpp xam nañ ko ci nekk jàmbaar buy wax ci bam ba mel ni gaynde daaru te boo demee këram ba gis ko waaru danaa fi wax as ci moom ba ñëpp xam ne ab kemam néew na ci wàllu gëm-gëm sëñ Muudu la moo ma wax fat fatu baa lenn ci ay jikkoom ma waaru boobaa wax na ma lool ci gànna faw ma wax ko ngir ku ko daa ŋaññi bu déggee ko te yàgg nan ñoom ñaar du tey démb la woon seenu diggante raw na xel tànneef la woon nee na ma moom saabu saloo ba génn jëm conférence ngay xam ne kii du kenn yitte ju mat lay boole ànd ak gëm-gëm loo wax mu naa seex bamba boole xam-xam nee na ma yiw na am na yar am xam-xam nee yëg na nit woyof na wàcce boppam nee ko amuk tawxiid la gën sariya booleeg rafet njortu minal jamiya nee aka am taalube fonki njax njaxlaf te jag te jub ki yambare xanaa du yii meloo ko gën ci koo fi gis ak koo fi dégg itam te yii daa gën a fees wax na ma loo xam ne ci moom du ma ko fi wax xanaa ma bàyyi noonu wax fi lii ma wax sopp ko rek a tax ma wax fi yii bayit ku sopp sëñ Gana Mesra yaa moom yii bayit soppal ma sax ka sopp Gana Mesra sopp ka sopp Gana lii njariñ la waaye daw ci murit guddeeg bëccëg naa bamba te buñ la nee Gana nga naa jaaxal na ma ku bëgg mbër bëggal ko ñëpp ci mbër ma soo ko bëggul xanaa bëggoo ci mbër ma te nee nga ñàpp yow ci bamba mii fi wax dafa am wax rek ci am kon waxal waxal waxal waxal waxal waxal waxal jërëjëf. adieu sëñ Tuubaa laa bëgg. adieu sëñ Tuubaa laa bëgg ñu neexal sëñ Moustapha Ndiaye tani ñëpp ñëw. joxe ma jotale ko rek jëriñu ku joxe waaw na ko jotale rek ku joxe na ko jotale rek waaw jëriñu ku joxe na ko jotale rek. ku joxe na ko jotale waaw ku joxe na ko jotale rek na ko jotale waaw ku joxe na ko jotale waaw. kan la sëñ Mabo. jotale waaw. jërëjëf si nga xam naa gisee loolu mooy noonu sëñ Touba dama ko wax sëñ Cheikh Ndiaye Jolof mais sëñ Cheikh Ndiaye gànn danoo ànd ci oto bërki dem am seetu sëñ Touba bu ma woo ma ne ko Mbàkke dara amu fi ma ne ko kër gi dara amu fi ñu ngi jëg jumaa ji ma ne ko ah dara amu fi bañ kii ma ne ko Cheikh Sëñ Tuubaa dee su ko jaay jom dee su ko jaay fit dee su ko jaay jom dee ko jaay fit ndax ñeewante ga muy ñeewante rek mooy defar lépp xam nga booba mën naa ne ko lépp a ngi fi am naa lii am naa lii am naa lii waaye wane ko ñoom dañuy bëgg a nekk ay jaam ci kanam Sëñ Tuubaa moo tax bu ma waxee rek ne ñun suñu maam jëfu dara loolu rek ngay wax yi bu ëllëgee dana leer boo légee dana leer waaye bu dee jëf rek ah am na am na ñu ne am na ku ku ne am na ku la fabal dara waaye boo ko wonee ci kanam sëñ Tuubaa dadul am sens waaw sëñ Tuubaa du fekk lii biteel du fekk lii kenn biteelam raxas ba mu set rek mu duy yëfam loo ko boole mu bàyyi la moom moo tax da fexe ba dégager lépp rek na mooma moo tax sëñ bi rek kon maa ngi leen di gërëm bu baax sëñ Ousmane coono bii ngeen di daj ngir jëmmi sëñ Touba sëñ bi gis na lépp sëñ bi xam na lépp oustaz Jibril seen a nga ne di di di di di borom xam-xam hmm? te loolu nit ku baax la la waykat loolu way sëñ Abdou Khoudous rek nga xam ne mën nga ko mën nga ko istinbat fa bil almi fahamun dudaylun mubarrizun bi kulli fununi al almi bi fashili juzeylul mubarris kon maa ngi leen di gërëm sant gan ñi fi daloon ñëpp man naa tàmbalee ci seen Bure juuf Bure sama rakk la sama taaw la sax ba muy dal ak man kër gële la woon mel na moom dong lay doon ba amuloon ñaar tey ñaari kaar indi na ko fi ku mu xam rek ne la ñëwal gone yi doon kuréel fii yépp moo leen formé mu doon koo xam ne saa yu waxee man la may wax mooy seen gànna yow mënu ma la fay 2003 ba suñu bisub tey bii saa yu màggal jotee ku mu am magama ngi nii waalee ngi fii ndax buñ fi defar moo ko defar ñetti fan jiitu na ko fi lu nelaw barki bi bi ñuy ñëw maa suñu Ousmane bi 4 heures fii lañ ko fekk mu yur kurusam di di di di di ming ngir di toppatoo jur gi te bu ko defar jotee mu defar ko te bokk ak moom lépp seen waa kër yëpp soxna yi ne yi bañ ne ko ba ren dafa andi sax ay nit na ñëw leen nekk ci wàññi di toggal kër gi mhm. te lu mën ci teraanga defaale ko na ngeen ma ko ñaanalal bu ree sant naa ko bu baax li tax muy loolu it dama koy wax ne ko daanaka kër gi yow yaay yaay yaay yaay yaay gan gi yaay gan gi ay bokkam rakkam yaa ngi fii ñëpp ñooy ba ñooy fomp kër gi jigéen ñi sax ñoo leen di defaral ay soble ka def lu ne di root di yanu di daw boole ko yar ak teggin te bu jàng saa yi duñ sant naa leen gërëm naa naa leen gërëm naa leen ndax kat Touba mën a dal yomb na sëñ Mouhamadou a ngi nii di sama sëriñ di sama xarit gën a yaatu sa kër moo gën a neex sa sa kër te moo gën sa kër it waaye téewut fii dañuy ñëw bàyyi seen lépp nekk ak man kon Bouré sant naa la bu baax tey day occasion ma war koo wax adduna seere ko loolu la yàlla boole woon daa doyee caaxaan 2003 Lamp Fall la ma déggee woon topp loolu di ko jàpp ci man di ko xam ci man ku mu am andi la ci man ku am andi na ci man kon yàlla na yàlla gën laa jàppale waxtu wu ne li may wax ñaanal ma maam doom ji tuddee la ko waxtu wu ne kon Bouré nag ma santal ñëpp di sant waa Kaolack yi nga xam ne ñoom it xam naa ñoom sax amuñu solo ndax daluñu fi ngir man dañ fi am soxna yee loolu lañ seen di moo tax ngërëm lu ko jar bu réemee daal laa sant waaye waa Kaolack moom moo sax di sant waa kër gi waaye di sant soxna jaar di ko jaaree ci moom ñoom la amuñu solo ndeela moom nee day jéem a doon doom lu Baay Faal waaye Baay Faal bi daa dëggu ndax day léeg-léeg day teg bët sëriñ bi soxna jaar lay diir ba léegi-léegi moo tax taalibe gi du dëgër ci moom as amini murit la daal dana jéem a góorgóorlu tuuti tuuti waaye kon maa koy kii daal kafin de yàlla moo ker kaw soxna jaara it maa koy sant ndax tey nee naa ko waaw góor nii moo baax ndax nun yow sa bàyyi dañu dañoo dimbale ba noppi nawloonu nawloo moo tax mu jël dara tam jox mu kon maa koy sant bu baax yéen it gis naa ni ngeen ko jàppe wax na ma nee na ma soppe yi bari nañoo xam ne bi ñuy ñëw dañoo xotti ay yére sax indil ma te nanguwul mu def dara kon nag sant man maa leen koy santal moom moom ak kenn tam ci man mii la nekk maa koy jëlee si soxna Mbee nag ñi mu maa ngi leen di sant sama doom la moom sama doom ndax ay bokkam ma ko jox Ousmane mii fi ne ku ma fonkoon la respecté ma mais da ko yokk ndax xam naa soxna Mbee na tax barki démb toog nañ fii mu a ma gërëm naa la sant naa la sa doom ji nekk ci man. loolu sant naa ko ci bu baax wax naa ko léegi nii dama bi bi soxna yi eh, tuwaale ba génn ma ko lëng na ko waaye ba nga góorgóor damaa yaakaar nañoo jaawale la nga war a am fii ëllëg dañ ko indi fii waaye ba dañoo doon ci nga góorgóorlu ci mën ta boolee demee nu léegi nii moom laa ko wax muy murid sadiq kon euh, Souley mii Cees la jógee di sama xarit doon ko baax moom it maa koy sant bu baax a baax di leen gërëm nag sëñ Moustapha xaside yi neex na waa ahlu daarul moxti yi jànqam yi moom dama moom bàyyam dama ko dénk ma waaw moom bàyyam damaa woo téléphone dénk ma ko am na koo xam ne sëriñ ma ma ko dénkoon mais danoo am tuuti aw dig yaatuwul sax waaye danañ ko régler après danañ ko waxtaan waaw waa Thiès TV sant naa leen bu baax sëñ moo lépp xol bu sedd rek ko waral ndax Euh, dañuy wax ne ku am loo war a sant yàlla danga ko koy sante sëñ Ousmane nag liggéey baa ngi soppe yaa ngi dama waxoon lay fedd li mbooloo yépp nañ booloo nekk benn sëñ Ibrahima sëñ Modou sëñ euh, Mbacke Diop moo ko créé nekk président d'honneur ci mbooloo mi ndax nit bu fentee dara jiite ko da koy delloo ab sagam delloo ko ab cëram ma waxoon leen na leen jëmmi Ousmane mii moom sama jëmm la ca nekkee kon soppe yii kuréel bu nekk sëñ Maxtaar mii nekk coordonnateur kuréel bu ne sëñ Maxtaar nañ ko waxe woon na doxal la muy doxal waaye nañ boole nañ jëlaat bureau boo xam ne day jiite kuréel bi nga xam ne day mel ni fédération sëñ Ousmane mi jiitu nekk ca doxal ko ñu xool groupe bi jigéen ñi ku ca war a jiitu jiitu ci nga xam ne ku ne day doxal la mu war a doxal waaye nag dañuy bokkaat bureau boo xam ne lu ca jóg jóge ci ndigal war caa jaar ñëpp a koy bokk waaye kenn ku ne nekkaat nag ca la nga nekkoon moom mii mu nekk ci ca jawrin ji jiitu ca bu boo leen waxtaanee ba xool ku ne ka ngeen ka ngeen ko cay tegal sëñ Modou Diakhaté bi moom waxoon naa ne commission culturelle bi nekk ci groupe yëpp nañ ko def mu jiite ko borom xam-xam la na nekk ca kanam sëñ Modou liggéey boobu doy nga nu ci sëkk na nekk imam ca Richard-Toll ga nga nekk boole di liggéey ba noppi sàmm sa diine te bi ma njëkkee dem Richard-Toll fekk ko fa ñuy waxtaan jaxasoowul yàlla natt ma dama ko gisee sopp ko moom nii te xaw ma woon ne boroom xam-xam la nii la mel bi ma dee topp ay waxtaanam sax damaa mujj na xoolal kii li mu dajale ci xam-xam nekk jàmbaar mën a liggéey ba noppi te bu la gisee yow fàttaloo lépp kon nag mbooloo maa ngi ñu waajal ko ndax borom mi xam-xam si Ibrahima ngi ne seen naa ko euh, Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye gar naa ngi fii gis naa ko ñooñu ñëpp doon ay waxtaankat faw ñu nos yëf yi gën koo ànde maa ngi. sëñ wala den moom. waaw mooy borom xam-xam. waaw sëñ Xaadim kon mi ngi noonee lu jiitu sëñ Xaadim ñoo ngi lay sant kon ku jiitu di président ka ca war a topp topp ca sëñ Ibrahima Jaxate ba mbar boroom xam-xam la moom it ñu xool loolu buñ ko doxalee rek lépp dina dëgër. ku ci joxe benn dërëm yàlla na ko sëñ Tuubaa fulal ku am yéene joxe yàlla na ko sëñ Tuubaa téyel fulal la sant waa koñ bii ma dëkk ndax samay dëkkandoo lañ waaye ñu ma jàpp lañ ñu ma fonk lañ ñu ma joxu cër lañ te sëñ Tuubaa rek a tax da leen a neex waaye bu leen neexoon duñ ko def man moom dëkkandoo yu baax la ma sëñ Tuubaa jox ndax dëkkandoo dafa dafa dafa xat kon nag maa ngi sant dëkkandoo yi di ñaan nii lu dëkkee nii rek nañ ko dëkkee ëllëg yomal xiyaamatul akbar maa ngi koy wax si Ousmane bi bi gars naan bokk génn kër ma leen day xat yomal xiyaam moom bokk kër du ñu arrangé parce que day indi yom nañ bokk koñ rek bu ko léegi kër yi jegee am bunti saral mais bokk kër gi moom du du ma nekk parce que ngay amat te bari day xew moom na ku ne nekk si kër rek léegi koñ bi moom man nañ koo bokk parce que Ousmane bi bu dendee kër mën naa buntu sarale léegi-léegi ma ñëw këram naan si café léegi-léegi ñëw sama kër waaw waaye nag ku ne ne kër te ku ne xaj na ci ndax ku ne mën naa am këram ah sëñ Mahmoudan sëñ Xaadim jërëjëf Mbàkke yéen ay sang ngeen doo leen moroom ndax seen maama demoon ngeen sëñ Fallou sa maam kii sëñ Ibrahima Mbàkke sa maam sëñ Fallou sëñ Ibrahima Mbàkke borom ko moo tax moo déggee groupe bi ñu naan noo ngi nuyu sëñ Xaadim di nga nuyu sëñ Abdul Baaxi di nuyu waale soxna Jaara mais damay dégg ñu ñu di ko wax ci groupe bi dama ciy sant yàlla ndax gars yi gars yi fi ne luñ la sopp sopp dan lay wan ne bu nu fontoo dan la sopp mais sëñ bee fi ne dan la lay wax waaye may bu ma damay wax maa ngi nuyu sëñ Xaadim nuyu sëñ Abdul Baaxi nuyu soxna Jaara di nuyu jëwriñ ñi may leen fari ma leen yéen da ngeen nga xam naa ne koo leen yó li mu yor yóbbaale ngeen di wut groupe bi dafa am jëwriñ yoo xam ne dañoo compliqué compliqué compliqué am na ci fi ne dafa am bat yoo xam ne dañ ma ko joxoon mu réer pot si la mi laa ko joxoon dama ko ruus su la dee sama waay bi ñu ma ko joxee keroog si la laa ko jox xaw ma fu mu ko bàyyi xam nga si la mbuus gi damaa xam nga da ko wàcc oto même déet waaye nag ma bëgg rek ngeen baal ma ndax bat si benn 2000 la te dégg naa mat na fukk ak juróom-benn loolu moom ah. fu waaw dix dix-huit bopp maam soxna jaara bosam ak saa bos noonu moom da ciy génn bopp si lay da ciy génn bopp maxtar jóob mii da ciy génn kon kon bopp génn te juróom juróom ne moom koy ba ñuy fay fukk ak ñett la ñuy fay kon ñi seen yooyu riir da ngeen nuy dimbale rek Ousmane mii nag nee naa ko woon yaay sama doomi lay nee na doomi lay fu mu guddee nga fanaan fa waaye nee na fanaan fanaan leen doon fay rek moo kaay yëkkati xasida tuuti gaa ñu door a yëkkati jataay bi suñu gànna xanaa xanaa xanaa waa doon bind sa tent bi moom du Xaadim Seck mais sandarma. ki doon bind. ana sëñ Xaadim sa tent bi. sëñ Xaadim daa ñëw. gisoo ko waaw ah, sandarma borom Tuubaa ñëw moo tax sama groupe bi kuy font des na fudd sa ligg de kii moom sëñ bennu boole. ab gendarmerie la. wala ab sandarma. gendarmerie mooy fa ñuy ne. sandarma mooy ki ko doon. kon ministère ak ministère. loolu mooy différence bi al wasaara ak wasiir looloo ko tàqalee diggante ministère ak ministre ak gendarme rek gendarme xam nga ne gendarme yoo xam ne ñooy doon say soppe di daanu di jooy di ñëw di la ñaanal ah loolu sëñ Tuubaa rek ko mën hmm? moo tax kenn du sëñ Tuubaa ku dul sëñ Tuubaa enracé woon waaw ndax dañoo bari bang bang mën a tooñ te gars yi dañoo gaaw a naagu fi ne ñëpp pare nañ seen appartement àjjana tam nañu amagul terrain waaye fi ne koo ci gis te gaa ñi fi ne ñeme nañoo tàmbali luyee bu ñu tàmbali bu ñu amagul terrain bi mun ñun ñëpp fi noonu lañ def rafet njort dëgër yaakaar kon nag liggéey baa ngi noonu. bismillah ma jug son ñeeti ndaxte ñu xam. na ah seet bu ñu fàggu lépp luñ mën a am. ak su man gi moo ñu ko jox xéewal yeeg jàmm ji sax bàmba moo ñu ko jox nan sax ci sant ko tey jëfal ko fuñ mën a ne. tey sax ci lam ñu digal te bàyyi lam na du ne nan sax ci jëfal ko tey sant lu mën a ne te sax ci jub tey digal te bàyyi lam na du ne murit dafay sell am xel te xol ba rafet mu sax ci jub tey jubal buy wax di wax lu rafet sëriñ Gana nii mu mel nag yàlla ko def ni ko neex Cheikh Bamba duy ay ndabam fu mu toll day gën a féex woyof ci kaw waaye daal baatin ba xel du ko jot xam-xam ba kenn du ko seen cay saa waay ji moo jar a gañ woyof ci kaw waaye daal baatin ba xel du ko jot xam-xam ba kenn du ko seen cay saa jii moo jar a gañ faaw wu ñu sargal ndax kat ci moom waajuram wa bég na ci moom cay saa waay moo jar gañ kuy sant ñoo war a raw kuy topp ñoo war a raw kuy jël alal di ko jox ñun soppe yu ñoo war a raw kuy sant ñoo war a raw kuy topp ñoo war a raw kuy jël xalal di ko jox tagg ko soppe yi ñoo war a raw sa daan laaw xasi kii day sama soppe dama koo bëgg te yàlla rekk tax maa ngi maa dafa am jëmm ju bëgg a jébbalu ci seen gànna bàyyi ko Ndakaaru bëgg a joxe boppam. wax naa ko ne dinaa ko wut ma ko booleel man loolu. waaye loolu damaa yàgg xam ne da koy bañ. ah loolu. du ko nangu ndax waxoon naa ko. ñi fiy ñëw ñëpp. man du ab sëriñ. man du ma ab sëriñ ci sama mbir nangu ak njëbal ngir waxee suma ko awma ci ndigal waaye ku ñëw nag na daa bëgg a jéblu ci man danaa la teg ci loxo yi sëriñ bi matub sëriñ bu wóor wala wommat ba doo jàq doo tiit mbooloo mu bari ñëw na fi fekk ma fi ñenn ñi ba ci ma boole leen ak seex Mahamadul Mamoun ñi ma boole Cheikh Abdoul Bachir ñi ma boole leen ñeneen ba barki démb am na ñoo xam ne si moom leen baaram yi moom suñu baara xuraja laa leen booleel waaye man du kuy nangu ak njëbbal du kuy nangu ak njëbbal man ab taalibe laa soxna yi fi nekk sax maa ñoom ay taalibe lañ sëñ Mourou Mokhtar yi sama sëriñ loolu la ma digal foofu la ma awloo man daal mbirum sëñ Tuubaa benn position laa ci am wala ñaar bëgg ko ak waxtaane ko xëccu ci dara du mag cheikh cheikh cheikh luuma ñu diw mag cheikh xëccu ma mbooloo dajalewu ma kenn nan ànd liggéeyal borom Tuuba rek la nga gis nag ba xemmeem ko ban wax ne loola da ñëw ngir war a nga ci man loolu responsabilité la bu rëy ci ma teg la ci loxo yu wóor te danaa la teg loxo yi sëriñ bu matut sëriñ boo xam ne dana la dimbale ci àdduna yomal xiyaam yi dana la dimbale danaa la loxo yu wóor yoo xam ne àdduna jii dana la ci mën a dimbale ndax ndaw nga yomal xiyaam dana jëm yàlla la dimbali maa ngi koy gën a leeral fii mboolem ñu koy wax di wax ne damaa bëgg a jébbalu ci Gana Messere man du ma ab sëriñ du jël ak njébbal du ma ab cheikh du ma dajale mbooloo kenn du wëri da ñëw ci ma man daal maa ngi ci biir tool bi wëndeelu rek looloo tax moom di ko leeralal sama bopp ndax kat àdduna yëf yi soppiku dafa yomb dem ba ñaar ak ñett di la wër ngay wuti mbooloo loolu moom man sama bopp doy na ma programme waaye nag naa sa xel dal danaa la yóbbu ci ku mat wax naa la ko ci bëccëg danaa la yóbbu ci sëriñ bu mat sëriñ bu lay dimbale àdduna dimbale la àllaaxira taxawu la sàmm la barke bala Tuuba